pour gagner Médina yaakaaruma ci Khalifa Sall yaakaaruma ci Sonko yaakaaruma ci coalition waa Médina kese laa ci yaakaar comme que nag comme que nag am ñu yaakaar ni coalition bi dañoo am dañ ko ànd pour gagner nañu xam bis ni ki tey demuñu benn coalition waa Médina kese lañ ci nar a àndal coalition bi ñuy demee mu ngi tudd Médina ci xol dama ni ñi doon njëkkanteeg reyante baal nañ leen ko parce que ñun amuñu jot di tontonteeg di tontu ñu tekkiwul dara comme que ñun yaakaar nañ suñu bopp xalifa Sall àdduna du yàgg ba ma wax ko lu ñaaw ndax mu sama magu xol la sama magu bopp la wante comme que am na ñoo xam ne xamuñu seen bopp il faut ma bàyyi leen ñu xam lu ñu tekk ci Médina kon li ñuy xëccoo may naa leen ko baal naa leen ko ànd ak waa Médina ñu ngi tudd waa Médina ci xol